Euh, canta ngërëm ñeel na leen yéen sa foo internet bi di net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore kat yi nga xamante ne kii di Barthélémy Dias daal dina koy yëkkati nag euh, ñeel candidature kii di Amadou Ba nga xamante ne rek Macky Sall moom moo ko daal di ngem moom nag la mu daal di xam ne rek mbir mi daal bu xoolee ba xool rek wala lu mu bëgg wax ci moomu lee mbir nag kii di Macky Sall nag day jëm a mu daal di samp kii di Amadou Ba ngir mu nekk président ci élection présidentielle yi dañ ma ci atuma 2024 bu nekk président dañu xam ne kii di Ousmane Sonko nag ca kasago rek lay nëbee di kaddu kii di Barthélémy Diaz mu daal di ci yokkaat nag di xamal bu baax ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy militant parti bi di Pastef rawatina nag les patriotes Barthélémy Diaz nee ma ngay invité ñëpp nag ñëpp ñi nga xamante ne rek dañuy accuser taxawu Sénégal que ne nag ay jaam lañ dañ leen a trahir waaye nag moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne nag bu fekkee ne rek dañoo bëgg rek bàyyi nit ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo fi def ay ñaawteef ci réew mi yàq lépp nag bu boobaa rek jot nañu xoolaat xoolaat leen bu baax ndax nag jamono ji yeewu jot na ndax injustice bi nga xamante ne rek daal nañ ko dund ci biir réew mi nag far mu faw mu dakk waaye nag bu fekkee ne nit ñi nag consciente conscientiser wu nañ bu baax ci moomulee mbir nañu xam ne boobu boobulee injustice nag ma ngay waaj a amaat tey looloo waral rek ñu daal di war a jël nag seen mesure def seen lay kattan utiliser bu baax nag seen xel gën a booloo ndax nag kii di Macky Sall rek bu ñu moytu leen di troisième mandat nag dina ko def te mbir mu nu mel passé la mu daal di xam ne moo di ne nag mën na assuré que ne nag am na ay nit yoo xamante ñu fexee di di dee di kàddu kii di Barthélémy Diaz mu daal di bu fekkee ne nag dañoo pare rek pour fal bu baax ki nga xamante ne moom la Macky Sall jiital nañu xam ne bu bi ñu mi nag nañ xam ne du mujj fenn ba tey rek la mu di xam ne moom Barthélémy Diaz ñu daal di amal ab conférence de presse boo xamante ne rek nag ci week-end bi lañ koy door ginnaaw foofa ca Paris le journal bi Les Échos nag moom moo ko daal di xam ne nag ma ngay woo képp koo xamante ne rek militant nga nekk responsable nag nekk ku raisonnable jamono ji nañu xam ne candidature bi nga xamante ne rek moom moo gën a du kenn rek du Khalifa Ababacar Sall maire bu Dakar mu daal di koy eh, déclaré que ne nag moom mooy candidat bu idéal boo xamante ne rek bés bu ñu ko votélee rek Sénégal dina nekk Sénégal bi mu nekkoon dina nekk Sénégal bu juboo di kaddu kii di Barthélémy Diaz jërë ngeen jërëjëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bës cloche notification ngir amaat yeneen info